junj nga ko sànq. waaw mhm. ajaratu euh, comme ni ma la ko waxee tout rek ñëpp xam nañ ni nag aljuma bi ñu génn ci la ñu doon euh, fas yéene ubbite li nga xamante ni nii moo di parrainage yi gars yi nag euh, demoon nañ ca direction générale de de des élections laaj yaa ngi ree de waaye baax na jërëjëf am benn problème. Eh, El Hadj réewul damaa ree ah. <laughs> <laughs> non moom moom saa moom xam nga bu ko saa xoolee rek. <laughs> bu ma jigéen di wax da nga wax di gëm ma <laughs> ay voilà ajaratu mm-hmm. mu nekk nag euh, mbir yoo xamante ne ni gars yu bëri am nañu mbégteel euh, ci mbégteel ci doxalinu Pastef parce que ñëpp dañ doon wax ne euh, comme waa Pastef saa yi suñ leen daan wax ci mbiru plan B wala C wala D mais dañ doon wax benn plan la am muy Ousmane Sonko waaye mhm. nag dafa mel ni gars yi dañoo daal di indi beneen système boo xamante ne ni bi ñu demee dañu mhm. lankal ki nga xamante ne ni moo di président Ousmane Sonko ngir jox ko fiche bi mu mën a dem wuti ji ci ñi nga xamante ne nii mën nañ ko parrainer waaye seddu nañu tamit ku ci mel ni Guy Marius Sagna ak Birame Souleye Diop mhm. Bassirou Diomaye fay ak Abbas Fall ñoom euh, laaj nañu ba ñu jox leen seen i ay fiche mu nekk cinq candidats yoo xamante ne nii ñoom jàpp nañ ni mën nañu dem wuti ji pare pare pare ñu leen pare ne auton pour moi ci yile euh, euh, élection ñu jëm waaye nag bu ñu fàttale ne direction général bi du moom mooy choisir ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a nekk candidat day des itam conseil constitutionnel moom fan lay dikkee parce que mën nga am fiche te doo jàll ci li nga xamante xamante nii moo di parrain yi moo tax bu ñu euh, saytoo euh, candidat yi nga xamante ni nii jot nañu gis ni ñoom bëgg nañ bokk ci élection yi buñ ko xaymaa ci ay euh, nombre egg nañ ci cent vingt six jamono ji te nañu yi am ñeneen ñi nga xamante ni nii daañu ñëw waaye tey nag li ñu gën a intéressé mooy système wala genre li nga xamante ni nii Pastef taxawee na ko ngir rek ñi nekk ci biir parti bi comme ay El yi ak El Malick ak ñi ni mel dem nañ ba ñu jox leen euh, Omar est-ce que euh, mbir yi mën na nekk loo xamante ni nii euh, luy dox la ak pouvoir bi ak ministre bi seen doxalin surtout ñoom ñu ne ñooy organiser yi les élections pour ñu bàyyi leen ñu jàll ak système bi ñu indi. Mhm. voilà. waaw jërëjëf maa jigéen xam ne fii looy li ngay jàngat rek muy opposition Sénégal. <coughs> Hmm. pour man opposition bi daf ci bari ay ragal daf ci bari ñoo xam ne amuñu fit wala boog ñu ñuy opposition wul opposition te du opposition. Mm-hmm. bu dul Ousmane Sonko man dama jàng ni opposition Sénégal xeex yi nu war a xeex du nga xeex. ji nga atum 2000 pour Ablaye Wade nekk président doonoo taxawal ak front FRTE ba tax Abdou Diouf indi fi ministre de l' intérieur boo xam ne général dafa maandu. maanaam amul élection alternance bu fi am te ku far organiser élection yi. 2000 noonu la demee 2012 Cheikh Gueye politigul bokkul ci lay wadd ñu jëlee fi Ousmane Ngom parce que opposition bi danoo xeexoon ba Ousmane Ngom organiser wul élection. Mm. man am lu ma gëm mooy bu opposition bi sàgganee ba ministre de l' intérieur bi Antoine Diome organiser élection yi man xawma ci dara fi ñu jëm ëllëg parce que da daf ñu wan jikkoo moom ak administration ci élection. législative législative ak locale yi. ñoom ñëpp gis nañ leen doxale local lañ gis ñu annulé fi ay liste yoo xam ne xamul dañu ànd dem ba ay préfet ñu def recours cour d'appel opposition bi gagné moom ministre de l'intérieur taxaw naa leen dem leen topp leen ci wàllu yoon te loolu waru ko woon mu koy wax ay préfet ba tey Cheikh Baar doon tooñ naan ay préfet amu fi mais ay préfet ñoo fi am tey ñu dem jóge ci loolu ñëw ci lii loo xam ne mosuñu ko gis ci àddina mm-hmm. direction des élections administration lan ñoom seen yoon ci ku war a jot parrainage di nga même ki amul 35 ans sax bu ñoon laaj danga koy jox parce que laaj boobu muy laaj fii si tekkiwul dara loolu mooy wane ni nekkatuñ ci yoon dafa am benn waay bu taxaw fee wane ni moom fii la far boo xoolee ni mu doxalee ab Pastef mooy duñ fi organiser manifestation duñ fi amati permanence moo tax ñu tëj ko dun fi amati parti moo tax ñu tas parti bi ki la def loolu bu ñëwee def la lii waru la bett jëmee ci Ousmane Sonko maanaam nekkatul ay jëm yi ma Samba ak ma Demba mooy usman Sonko du bokk te duma ko teg ci yoon duma ko teg ci loi dama koy teg ci doole ak li ma neex maanaam mbir mi mbiru doole la ak kàttan ak li leen neex. léegi nag opposition bi à chaque fois dañuy jàpp ni gars yi dañ leen koy yombalal di nga opposition yi fi nekkoon ci jamonoy Laye Wade ak 2012 dañ ko yombalul woon nguur gi kenn waxul da ngay wàcc mbedd mi xeex wala ngay xare. mais di nga fiche électorale bi yaa ngi na ngay demee parrainage boo xam ne dan na la parrain yi ci fiche bi la ñu jógee yow xamoo fiche yi xamoo parrain yi xamoo jotoo ci fiche bi xamoo yow parrain yi beneen bi si topp ak li dal Ousmane Sonko nii loo xam ne administration kenn xamul fu mu ko teg ci àddina dañuy wax ci même bu dee ci wàllu yoon lan la wax jurisprudence boo ko doon àttee 2019 mayoon nañ ko Karim Wade pourtant ñoom dañ leen a condamné may ko Khalifa dañ leen a condamné teewul da leen bàyyi ñu uti parrainage am ko ñu dem ba conseil constitutionnel conseil constitutionnel àtte loolu mm. tey jii eggagun conseil constitutionnel une administration boo xam ne yoonam ci nu yoon war a doxee séparation des pouvoirs mun a taxaw ni ñii dañuy rejeter seen mbir léegi waa passé teg seen i fem léegi nag waa passé fi ñu dugal nguur gi man pour man mooy du leen ko yombalal na Khalifa Karim da ko yombaloon mais ñii dañ ne du leen ko yombalal te Ousmane Sonko beneen sens dese na ko mooy parrainage optionnel bi mooy mbiri député yi foofu ba léegi mën na fa jaar jàll léegi nag li jëm ci parrainage citoyen bi maanaam wàcc ci mbedd mi uti parce que tamit daf comme doole moom pour buuxante la rek dalay wan ni tey jii gars yi ëpp ñu leen dara bu dee buuxante ci mbedd mi gars ëpp ëppalewul leen ko moo tax tey jii bu dee te li ci doy waar mooy joxuñu fiche Ousmane Sonko mais ñi iti fiche fiche yooyu mën na jariñ Ousmane Sonko xam nga ni parce que ci fiche yi amul benn tour bi ñu ciy bind naan boo amee parrainage yu temps temps pour tour kan la mën nga ko dajale ba mu bari jugal ko son Sonko wala ñu ut seen plan B ñoo xam ni tojee seen bopp ginnaaw mais pour man opposition bi xeex bi nu waroon a xeex. buñ ko xeexoon ci bu njëkk duñ egg ci fii. mais man bu naree dem élection ak Antoine Diome ak ministre de l'intérieur ak administration bi nar a organiser élection yi li gars yi di waxoon dina xam naa pexe yi nii jaar ba gagné man pour man pexe yooyu lu nguur gi nekk. d'accord te problème bi cooli cooli. mooy xam da ngay wax ci candidature yu bëri leen rek moo ko waral ñoom ñëpp danoo jàpp ni Sonko du bokk mais bu leen leeroon Sonko day bokk ñi dépose yëpp duñ dépose ndax dañuy xam kan mooy gagné. kan mooy gagné son yi bu est-ce que euh, Sonko euh, njortul wala peut-être mu yaakaar ni li daloon xalifa euh, Babacar Sall ak Karim Wade moom lay bañ mu mu mu dal ko cette fois-ci mu dem collecter ay parrain ba noppi mu ñëw ñu téye ko moo tax ñu indi ay ñoom Guy Marius Sagna ñoom El Malick ak consort waa ma jigéen jërëjëf xam nga politique gu Sénégal fii mu toll moom saa mi ngi koy junj sànq ci euh, émission bi. Mm-hmm. bari na ñu réer nag ci jamono ji ñoo xam ni maanaam euh, bu doon làmb la mënuñoo pronostiquer combat bi war a am. Mm. ñu ci bari réer nañ parce que carte gi dafa jaxasoo. jaxasoo gi jaxasoo nag euh, mooy damay sukkandiku Seydina Omar Ba journaliste ci kër gi dama ko dégg ci suba. Mm. mu ni bu liy jàllee li ñu def Ousmane Sonko ni ci direction générale des élections bu jàllee. élection mën naa bañ am ci réew mi président mën naa dem jël ki mu bëgg mu jiite réew mi rek maanaam mu jiital ko. Ah. waaw parce que mooy yow dañoo wax ni xam nga man jànguma droit yi ñoom ñoo ko xam ñu ni banqaas bii kat nga xam ni moo kale Ousmane Sonko loolu du liggéeyam moom li ko jox la rek Omar wax na ko léegi fichier lañ ko jox ni ko. joxeel joxeel. yow boo paree nga dem déglu conseil bi les sept sages boo demee ñoom ñooy saytu ndax. dañuy dañuy bokk wala du bokk ndax kii ay parrainage am jàll na wala du jàll loolu ñoom ñoo koy def léegi nag mu ñu demee ba kër gi war na lijjanti loolu lijjantiwu ko te ñu fexe ba loolu lijjanti ko kon problème am na léegi nag bu ñu sukkandikoo ci loo xam ni euh, euh, saa doon wax ni defe naa yow yaa doon wax jommeen ni réew mi amul yoon mu jubbanti la ni la ah kay ñaari yoon a am muy bu fekkee man ak yow ñoo ñoo jotee bu ñu demee ci yoon atte bi dafay tege ci yoon parce que ma jigéen ak Souhaïbou la. Mm. Biti ak Souhaïbou la mais bu dee ci Sonko état bi la. da ngay gis leneen loo xam ni doo xam ndax maanaam lu ñuy teg ci ay texte la wala xam-xam buñ jàng ji woon la wala ay magistrat ñoo ko def parce que doo comprendre nga ni waaw parti jàmbur bi ñu ko tasee am na ay boroomi xam-xam ci wàllu magistrature bu wax ni tas gi sax jaaduwul bala nga tas parti bi nit loolu dafa am ñu koy tas maanaam nit ki du toog fee rek ministre leen fee toog rek daal ni tas nañ parti bi dafa am nañ ko war a tasee ñu ni waaw ñu dem ba ci biir itam tëj ko ci dossiers yoo xam ne dañuy wax ni mënta bokk ci élection yi ñu ni dossiers yooyu kat maanaam buugalee guñ maanaam euh, cour suprême pareegul kii atteegul yooyu yëpp ñu boole ci daal di ci atte Ousmane Sonko ba léegi nii nekkul candidat hmm. après yooyu yëpp dangay ngay ngay mën a dégg wax ji kon ni bu dee ci mbiru Ousmane Sonko bul xool yoon wala ñu naan lii la ñuy doxale ñoom ci seen jeu bokk léegi li ma koy dëgëralee nag mooy li mbay Ndiaye waxoon ca Pape Ngagne Ndiaye muy affaire yi dafa am fu muy toll nag seeni mbiri bopp la maanaam politique day taxaw hmm. Mbaye Ndiaye ñu ko wax moo ñu xamal ni lii ñu def Ousmane Sonko seen i man xaw oh, man dama jàppoon lépp ci yoon la tege mais Mbaye Ndiaye ñëw toog ci télé bi ñëpp di ko dégg mu ni affaire yi du defaat démocratie gars yi ñooy def seen i kii seen i pour éliminer ki ñu bëgg a éliminer loolu moom moo ko waxal boppam léegi nag bu réew mi demee ba toll fu ma jigéen dama la ko waxoon fii dama la koy waxaat gis nga réew mi damaa bokk ci ñi gëm ni yàlla du seetaan ay nit di ko jaabaa jongee réew mi réewum yàlla la tànk yooyu la ñu non non non mais waaw bu suñu demee ba say désir yow nga bëgg ko def ay loi ak droit waaye mais Ablaye Wade su ay pexeem sotti woon. Mm. parteem mooy nekk ci pouvoir ba léegi mais yàlla dañu ko woon man maa xam ne xew inna fadlallahi yuuti man yasha wallahu sul fadil azim mais ñii di def Ablaye Wade daaw waaw waaw mais Ablaye Wade téewul moo yoroon doole ji doon def romb président Macky Sall ni romb naa ko ñetti otoom xeeb ko yàlla ne ko ki ngay xeeb mooy toog ci sa siège bi président Macky Sall mii mënul xam ëllëg suba luy xew bay xam fii ak 2024 lan mooy xew réew mi yàlla xam na ki ko war a jiite mm-hmm. pare na ci te man dama jàpp du nangu ñuy jël réew mi di ko foye mm-hmm. man loolu laa gëm-gëm boobu laa am dafa am ay ay ay ñaan yu téye réew mi yoo xam ni bu nit ñi gëmee ni jàng nga de ah? yàlla du defal kenn lu mën de mm. waa ñii ñi ngi def ah ñi ngi def di Guy Marius Sagna ngi nii léegi dañu déposé mm-hmm. ñu koy bañal di ko bañal ba mujj léegi buy déposé ay policiers taxaw ni ko doo jàll doo àgg mm-hmm. mi ngi def di ñii mu ngi leen aaye manifestation léegi mu amatu nit ñuy def manifestation ñi ngi live ñi ngi def comme dañ leen a tëjal bunt yi léegi bu ñu manifester ñun du ngeen manifester léegi laayef lañ dese ñu nekk bitim réew di manifester ah nañ bàyyi yàlla àtte jàpp naa ne yàlla du bàyyi réew mi nii mm. incha allah yàllaa ngi fépp mm-hmm. voilà ajaratu mm-hmm. est-ce que direction générale des élections moom moo war a choisir que muy war jox fiche chaque ku mu war a jox loolu kay leer na nit ñi xam nañ ne du moom. Mm. moom dañ ko teg pour mu joxe dafa war a joxe rek ku ñëw rek dañ la war a jox. Mm. parce que nag euh, ku ci ne nekk sénégalais boo xasee ba nekk sénégalais am nga ci droit man man man defe naa ni coow lii yëpp man boog sama gis-gis la man personnellement. Mm. man je me dis que ni élection bu amee man bétti dina nekk lu ma bett. man jusqu'à preuve du contraire pour man présidentielle du am man man sama ngëm-ngëm la parce que vu ni mbir yi di doxee nii. dara nañu waneen wanewul nii euh, ñun dinañ dem ci présidentielle en février non man gëwma ko gëwma ko non gëwma ko ni mbir yi di doxee nii bu amee dina ma bett trop mm, d'accord mm. Alaaji est que nekkul tamit gars yi dañuy bañ ñu jox ko fiche mu dem collecte te xam nañ ni waa ji su génnee pour dem wuti parrainage rek euh, du loolu moom moo koy të su amee nombre ñu ñëw baare ko wala conseil constitutionnel ne ko doo jàll bu boobaa du indi yeneen problème moo tax ñu teel koo euh, qualifié nii ne ko doo am. waa xam nga àddina moom dafa am ñoo xam ni. Hmm. dañ leen di yëgal ñii di yëg. Hmm. waaw jàpp naa ne nag Sonko moom dafa bokk ci ñi nga xam ni dafa yëg. dafa yëg lan li xew lan la. parce que moo permettre mu am juróomi candidat maanaam hmm. président Macky Sall boobu ba nëga ni benn yoon la doon topp muy waa ji waaye gaa ñi léegi lañ ko indil waa ji topp waa ji yomb na waaye topp gaañee jafe waaw ci biir gaañ nag mooy ñi waaye <laughs> te waa ji mën naa na ci gaañ <laughs> waaw ah, parce waa ji mën naa ci gaa yi waaw donc léegi euh, moo tax euh, bàyyi woon lépp rek mu tegu ci li nga xam ni mooy euh, siraatal mustaqim mooy li gënoon waaw muy yoon wi nga xamante ni bii mooy yoon wu jub hmm. waaw xam président Macky sàll yàlla lépp lu muy def rek maanaam bi mu ne am na benn kii bi mu ne bàyyi naa léegi gisuma lu fi jar njuuj njaaj ah bàyyi naa njuuj njaaj waa xam nga loolu wax la joo xamante ni bii kon donc dafa nekkoon ci ay njuuya njaaj parce que moo wax ne bàyyi na ko njuuj njaaj googu nag eh, yàlla dalay jox koo xam ni eh, moo la parce que boo seetee doole ji nga xam ne moom la état yor eh, dañu jël doole ji utiliser ko te saa yu ñu ko utiliser rek sunu borom day def lépp day delluwaat ci ki nga xam ne moom la ñuy teg doole jooju maanaam yow peut-être yaa ko dut seetlu wala keneen a ko dut seetlu mais maanaam bu fekkente ni yaa ngi def nit lu dut yoon maanaam da daf da ngay dem ba mujj gi dañ ciy abusé di def lu dut yoon parce que taxawaay bi nga xamante ni moom nga gis ni ñu def ko muy ñu warta amal lii te sunu borom ni mu la koy leeralee xam nga nit ki bu la waxee sax ne ñii waruñu ko woon a amal léegi nga naan noonoo dañ lay indil ñoo xam ne jaar nañ fa muy Khalifa saal bi Karim Wade jaar nañ fa te nee la demee woon léegi lu tax léegi bii yoon mu demee nii ci Ousmane Sonko léegi nag lu tax mu demee nii peut-être que ni xam nga ñoom Karim Wade ak yooyu booba mënoon nañ leen a baaree fële. mënoon nañ leen a baaree ca jam ñaajo li ma ko wax mooy conseil constitutionnel laay bon peut-être que ni boobu leeroon na ni foofu moom bu ñu fa yeggee dañuy loolu waaye kii moom xam naa da leen a leerut mi bu demee fële euh, nan la yëf yi di demee parce que mën na leen a bañ a leer donc loolu lenn la c'est que président Macky Sall am na loo xam ne bés bu ko xamut rek pour man euh, mi ngi ci erreur maanaam tey boo demee ak joueur bi ci terrain bi moo la dàq football bu ngeen génnee nekk entreneur moo la gën a mën a coacher te fi mu toll nii loolu moo commencé di feeñ. Mhm. parce que actuellement président Macky Sall daf ne coach la nekk ci bitti bëgg a def Ousmane Sonko bëggoon koo génne Ousmane Sonko doonaat coach juróomi candidat yi mooy ñi ñu gis. waaw ku la wax ne la cent vingt naata. cent vingt six léegi si cent vingt six yooyu boo génnee juróom yi nga xam ku la wax ne sonk Sonko amut beneen candidat boo xam ne mi ngi ci biir. waaw Damboj de jox nañ ko moom mais Damboj bokkul si benn parti. ma ne ko pour la ne xam nga Sonko lenn la yor xam nga li Macky président Macky Sall dafa am loo xam ne moo koy liggéeyal Sonko te doole ju mu koy teg rek day yokk doole jooju xam nga muy laan hmm. muy ndigal li nga xamante xam nga Sonko yor loolu suñu borom jox na ko ba pare. Hmm. na Betty mii nekk sama candidat Sonko ne Betty mooy sama candidat. Hmm. fal leen Betty. mooy sama candidat barki yàlla bés bu ko waxoon tey am na ñoo xam ne seen yoon ci biti fu mu jaar ak mu ngi dañu koy voteel hmm. parce que xam nga lu tax ko moo ko wax loolu yàlla moo ko ko jox yaa ngi dégg te mi ngi ci ay loxoom loolu léegi nag kooku bu fekkente bi da nga ko téye mbër mu ne diwa kii la moo tax ma ne la xam nga saa ma ne ko Euh, Sonko coup bi mu dóor ñëpp dañuy defee nii état doo nga la dal waaye déedéet même ñi doon séentu pour faraatu ak riisaatu ay militant Sonko ñooñ sax coup bi da leen dalaale hmm. parce que am na ñu doon séddi di jéem a wax wax ju rafet di ko jëmale ci Pastef te fekk rek gëmuñu Pastef hmm. mais dañu bëgg waa Pastef parce que dañu xam ne Pastef dafa am nu mu àndal di jéem a ànd ak Sonko di wax naan wéy kërëb kërëb mais gëmuñu ko yaa ngi hmm. léegi rek Sonko war na leen ne moom quel que soit Alpha day am candidat. Mhm. léegi nag man président Macky ngir mu rafet mu am way su ma doon moom. arbitre bi dina ko may. damay ah. arbitre bi dina ko su ma doon moom. Hmm. damay génn ci yii yëpp dellu vaar daan ne waaw li ñu tere woon. lii mais alaaji yow président Sall bu doon arrière du arrière ba léegi. waaw mais c'est que bu arrière xam nga leen mais arrière affaire moo xam nga benn affaire mën a arrière. Hmm. ci hmm. yaa ngi dégg arrière ci njekk gars yi dinañ jël nguur gi parce que Sénégal moom ma wax la leen problème mu système moom pare nañ ci. ah système bi fi nekkoon depuis 1960 ba naka ni. Mm. Sénégalais yi moom pare nañ ci. wallaahi génnal fii ci mbedd mi rek dafa am 2000 euh, 2012. Euh, mm. dama toog benn kilifa ci diggante ñaari tuur yi. Mm. wallaahi mu ne ma mu am ñu koy seet si. di ko gëmloo ne ko Ablaye day gañe carrément mu laaj ma. ma ne ko ah man de ku leen di voté laa gisut. wax dëgg fa yàlla carrément parce que man gisuma woon boobu ku wax ni Ablaye Wade lay voteel gisuma ko parce que dama gis ni euh, deuxième tour yi président Macky Sall day gañe loolu laa gisoon. Mhm. ma wax ne ko ah man de wax dëgg fa yàlla li ma gis gisuma ku leen man de jàpp ma Ablaye Wade dina jàll. mais bi élection yi rombee mu ne ma visionnaire mais mbir mi du visionnaire gisul du ay visionnaire mais ah, maa ngi ci dëkk bi yaa ngi ci gis na. dama xam ni sénégalais yi am na ñoo xamante ni bi système bi ci boppam moom lañ bëgg mu soppeeku te loolu dafa dugg ci seen bopp. mais bu candidat anti système amul nag anti système a am. far mais ñoom ñoom ñooy organiser. ñooy xool ñu leen neex organiser xam nga loolu bu leen def yàlla du yàlla. Mhm. dañuy tëral ay pexe bu doon li ñuy def mën nañ ko bu yàgg def nañ ko bu yàgg mais lii ñuy def nii yëpp ay pexe la c'est bu leen jël affaire yi defe ne. Mhm. quel que soit Alpha nii lay demee ma ne waxuma la. mais la ah, waxuma la Antoine Diome mu ko. na ko Amadou Sall organiser élection yi yaa ngi dégg na ko Amadou organiser. élection yi bu ñu demee ci ay élection mbirum système ci boppam moom mooy puus fële. lu leer laa la. ci li nga yaakaar rek non loolu mooy li am. bu amee waaw ah, ci li nga yaakaar loolu mooy li am. nee lay puus. loolu moom bu yemoo xam moo tax man Amadou Ba dama koy. gaa yi jógee guñ fi de. ma jigéen looy tëjee moom leneen la. Hmm? mais gagné moom duñu. gagné laaw gagné laaw ah pion yi ñu dox. pion yan ban pion. wala yow opposition bi boo jëlee ki fi ki ñëwoon moo fi nekk. nga xam ne dañ ñëw Omar wax sànq benn opposition doo nga fi nekk. waaw amul beneen que xam nga lan xam nga la boo tax parce que combat yii. waruñu ko woon a bàyyi ak Pastef kese. lii nga xamante ni mooy li am nii mais bu fekkonte ne bi ñoom lool la lii waroon nañoo jóg ñoom ñëpp am nuñ ci taxawee ne lii du yoon mais ñoom ñëpp ku ci nekk tey maanaam toog di tee Ousmane Sonko ñu ne tee nañ parrainage am am na ñoo xam ñu ngi tëdd alhamdulilahi rabbil alamin du dem c'est que gëmuñu kiiwuñu ko sax quoi c'est que loolu mooy li ne benn opposition moo fi am opposition daa am lu mu opposition pouvoir moo opposition bi mooy opposition bu mës a ànd def benn bloc nii musul am ñoo musul am mais daf am yoo am fi. non 2000 mais am na mais am na yeneen dafa am daa am yu ñuy déggoo dafa am mais li significatif dafa am ay question de principe. xam na principe yi mooy lan. dafa ci am yoo xam ne opposition yi ma gis ci àdduna yëpp dañ ciy déggoo. waaw mooy na fichier mais fichier bi. waaw nan ko leeral. beneen bi mooy ci organiser élection yi na maanu maanaam yooyu xeexu opposition la. boo xam ne même buñ bokkul ak Sonko bëgguñu Sonko foofu buñ fa dajee ñooñu ñëpp dañuy ànd di waxandoo benn baat bi mais opposition bi leen dégg ci leen dégg ci kan moo war a organiser élection yi. da leen dégg ci xale yi dem leen ko fii def. moom moo ñoom ñoo jël booy yi ñuy wax naan gars yi. inscrire parce que fii gars yi ku ci inscrire tamit danga naan mooy booy yi inscrire yëpp ayca maa ngi lan ngay tëjee. loolu mooy problème bu gars yi tamit.